Modou Lo nag taxawoon na te fan yi am na lu mu xewal di wone ni moom du laaj gàllaaj roi des arènes bu bette roi des arènes boo xamante ne xale dana ko jël ci luy bette muy Siteu mii combat boobu ni ma ko waxee rek mag moo gis mu mës a taxaw rek ah daanaka gone ko fi jële boo ko xoolee ci ñoom dubalees ak mbay géey ak booy bambara ak taay dën yëkki nekk maanaam combat bii ma gis. ñoo ziar leen yéen ñu faral seetaan Nouvelle Vision TV te ñu doxantu seet si benn saltige boo xamante ne ñu bëri xam nañ ko lépp lu mu mas a wax gis nañ ko waaye nag dinañ waxtaan ci actualité réew mi rawatina élection yi jëm la seet ba xam Ousmane Sonko mën na am victoire eh, ci kaw ñi xamante ne ñoom la ñuy xëccool pour Assemblée national dina waxtaan combat bi xam te moo dox diggante Modou Lo Siteu coow li bëri na. Balla Gaye de ñu ngi koy ci doom ji xam moom la tuddee Aziz Ndiaye mu nekk lu am am solo lépp nañ ci waxtaan salte bi maa waaw ku baaxee noo ngi leen di siyaar auzu billahi min aseytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala seydina wa mawlana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman raddaytu billahi rabban wa bi islaami diinan wa bi seydina muhammad sallallahu taala wa sallam jërëjëfa sëriñ tuuba jaaraama borom daaru jaraw lakk maam cheikh ibrahima fall ñoo ngi ñaan bu baax ci kàttanuk cheikh mourtada moom sëñ fallu sama wasila sama moom mi nga xamante ni lu ma man moo ma moo ma dooleel ñoo ngi ñaan sunu borom bàyyi ko fii mu yàgg fi te bay sëñ Fallou ndax sëñ Fallou di ñaanal bu baax Cheikh Mamadul Muntaxa moom mi nga xamante ni mooy xalifatul am di islam di ummatul muhammad di ndimbali jaam ñi mi ci liggéey bu rëy bi ak mbënd mi mu woote Mbàkke Balla yàlla na fi yàgg te wér. Euh, saltige tey dina bëgg waxtaan. seen liggéey ngay def liggéey bu am solo. liggéey boo xam ne askan bi yëpp xam na dañ ciy liggéey di ci jëflante ak ñoom jafe ngaa jot waaye nag alhamdulilah bi ñu dikkee ñu xaar ba nga pare ci ñi nga invité woon ak ñi la seet sa liggéey ñu mën a am ak yow émission ñu ngi ciy jéglu bu baax a baax waaye nag fi ñuy commencé moom dafa am benn combat boo xamante ni dafa taxaw diggante Siteu Modou Lo Siteu nag xam naa ne soriwu la parce que it yow jege nga caaro yi lool te caaro yi jege na jàmm gën ñu dis ne foora bëri ak Lo cool yi bëri na ndax mën na nekk roi des bëgg naa waxtaan ci nag nga gisee combat boobu ndeysaan jërëjëf général mu mel ni combat boobu ni ma ko waxee rek mag moo gis mu mës a taxaw rek ah daanaka gone ko fi jële boo ko xoolee ci ñoom dubalees ak mbay géey booy bambaraak taay dën ak nekk maanaam komba bii ma gis jaral na Siteu lool lool lool Modou Lo nag taxawoon na te fan yi am na lu mu xewal di wone ni moom du laaj gàllaaj Modou loo xam na ni moo gën a dàq laaj gàllaaj waa Modou Lo moo dàq laaj gàllaaj moo dàq sangu moo dàq ñaan waaye dafa am yoo xamante ni mën naa bañ a ñëw estat ndax lay daan mbër ak sarax yay daaneel mbër ak sarax yay yeewu mbër ñi xam làmb yàgga ñaan ci làmb xam nañ lu tuuti la yenn nii dalal xelu supporter la rek ak showbiz ak culture waaye dama ni la fii làmb ci taxaw Siteu bu fonkee sarax fonk ñaan dëggal boppam ci kàttanu yàlla tabaaraka wa roi des arènes bu bette roi des arènes boo xamante ne xale dana ko jël ci luy bette muy Siteu mii ndax combat bi tabiham taxaw na biddewam taxaw na waaye ci kaw mu ñaanlu ci kaw mu sarax ci kaw mu moytiit maanaam entourage am bañ am coow ku mu wóoluwul bu mu ko rax ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala combat bii li ma ci gis Siteu bu fonkee sarax ndax ay sarax ñaari kenn du ko jébaane ndax dama ko def ci ay combat ñu dëpp ko moo tax fi mu ne bu ma déggee déggal ma gis ay ñaankatam ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala Siteu bu taxawee incha allahu rabbi làmb ji làmbam la te yàggatul dara buñ ci jógee ndam li dana dégg jàmm gën dana dugg te ci kàttanu yàlla Siteu la ñuy woowee roi des arènes ndax combat bi tabiam moom la taxawee. su dee def na sarax yi. bu dee def na sarax yi sarax yi rek lu gàtt la mën naa ko ca mosal leen. gaa yi dañoo gaaw ci kat dog vidéo jaam ne dañuy yóbbu vaar nit ki fan lay waxee. nit waxee loo tax ndax dafa gaaw ci da ngay wax dama ko mës a def ci ab làmb la ma wax ñu dagg sarax yi ni lii la waxoon dama ni la moom ili séeréel ya mu dëkk ndax séeréelu baasun la wala séeréelu ndox la muy séeréel yi nga xamante ni ñoo dëkkee côté ñoom ni moom na fexe ba am ñaari giléemu tukkal bu weex tàll ak boo xamante ni dafa xaw a maron mu jël ñaari nag yoo xamante ni dañoo ñuul ñu rey ko digg fajar di jëm bët set ñu rey ko fajar ci wetu ndox mi bu ñu xëyee maanaam xale ya nga xamante ni moom lañ koy jox ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala du am bàkkaar mu boole keek li muy defal boppam xam na ko xam naa ci kattanu yàlla làmb jooju nag na fexe ba bàyyi motloo moom mu njëkk ko ci làmb ji waaye bu fekkee mi ngi ñëw ci làmb ji na fexe jaar fenn fu muy tëbee waaye bu mu jaar ci bunt ndax miin yi ñu war a miin ca fa muy jaar moo xam fu muy jaar moom na bette jaar foo xamante ni day tëb dugg ci biir stade bi ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala bu fekkee fu mu toll ci entourage nañu fexe ba mel ni lii di serngal yoo xamante ni lu nuy mbaar la côté Tivaouane boo fa demee am na garab yu ñuy wax ron ci kattanu yàlla tabaaraka nañuy fexe di ko ko muur nañuy fexe ci kattanu yàlla tabaaraka naaj wala jant bañ koo tiim ba koroog arbitre bi di leen woo ci làmb ji incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala làmb ji làmb Siteu la te buñ ci taxawee loxo dina dar gémmiñ ndax xale bu ndaw war a jël roi des arènes ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala taxaw na ci. am solo fi ñuy commencé fi ñuy bëgg a nag mooy sa façon seet yi ngay def ba lépp loo wax ñu gis ko man salte gi li ñu ma jaaxal mooy kenn mësul gis loo wax ñu dagg ko. yan façon seet ngay jëf ko ay jinne moo lay wax wala ay rab la wala lan la. ndeysaan général mu mel ni ñu seet moom maa ci bàyyi sëriñ si sëriñ si maa leen dàq seet bokkuma ak ñoom ndax seet bi may seet dafa bari ñi dañuy seet ci kurus ñii di seet ci ndox ñii di seet ci suuf man seet bu ñuy wax ramli laay seete su ma seet dëkkalee dëgg dëgg dëgg dëgg mën naa tëdd sax seetaguma say mbir ñëwoon ma la ñi fiy jóge xam nañ man rek ngay dégg ci may wax sëriñ boo xamante ni nii Cheikh Moustapha Fall Kéemaan naan client boo dégg foo nekk laata maa jëflanteeg yow dara seet lay doon yoral say million yoral say milliards bëggoo ma seet la demal loolu doo ko dégg ci sëriñ si gars yi yàkkamti nañ nga ne allo bañ ne la ñëwal man seet laa lay def dëkkuñu gisuma la xamoo ma nekkal ba income ma tari la sa jëm seet bi may seet maanaam moom la ñuy wax ramli jibril moo ko jàngal yonent yàlla idrissa koroog ba mu ko ko jàngalee ni ko fi jibril ne ak ay question mu ne ko jibril di kii ma gis mu ne sama wet met nangam bu fekkee du jibril ma xam ne jibril amoon seet bi may seet nag kenn ku ne xam na ko man dama donn seet daan ñaan kenn ku ne xam na Baye Cheikh Ndaw borom tengaane gi mooy sama maam sama maam moom la nu njëkk a tuddee Cheikh Rafal ca Tasineer ca Gànjool sama maam mooy ki nga xamante ne nee na su ma jógee tànk xam naa borom àjjana la jëm wala sawara xam naa borom ñaata at lay dund bàyyi Cheikh Ndaw ku ne xamoon na ko mooy liir bi am ñeenti fan am taalibe nit. comme ni ko doon waxee rek mbirum noob nekk lu jafe ñu bëree bëri bëgg ko mais duñ gis ki lay mën a noobal normal yan façon noob ngay noob ba lépp loo xamante te ne wax nga ko rek askan bi teg ci seen bët. waaye incha allah man la ñuy wax Cheikh Moustapha Fall borom almet ji borom almet ji kenn ku ne dégg na ko ci man muy Cheikh Moustapha Fall borom almet ji nit laa koo xamante ni li ma lay digal nga war koo def ci almet ma tàlloo la ko. lii mu almet yi ba mu jeex tàkk ma wax la li nga lay wax nga def ko ci ndox ma boole la xaatimu alquran jox la ko ay turu yàlla ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala boo ci jógee lu mu bis yi may wax ak yow wala lii mu weer yi nga xamante ni dama koy wax ak yow doo ko génn man damay nopp ci li ñuy wax guro samp ci ay puso ba ki nga xamante ni da lay bëgg bu sëggee di la gis bu bañee di la gis damay nopp ci li nga xamante ni moo ñuy wax soble damay nopp ci li ñuy wax kayitu tabax nopp dama cee yor ay mbir yu baree bari yoo xamante ni dama ko jekku waaye nag bismillaahi tabaaraka wa taala ku may noobal nag ma wax lu leer ndax duma def loo xamante ni ci kàttanu yàlla tabaaraka wa day deñ moo tax damay bëgg farata ak sunna ñoo xamante ni jaamu yàlla moo leen di tax a jóg ñoo xam jullit lañ ñoo xam chrétien lañ ñoo xam lu ñu doon ndax sama nopp dafa noobantuwul dama daan jóg ba bu njëkk jë jël nopp gi nga xamante ni ba ma koy jàng maa ngi ci daara ji maanaam ci maanaam bàmmeelu nit nga jël néew bu màgget wala néew bu am lii mu at maanaam nga def ko dugal ko ci xamante ne mooy ron bopp bi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa la boo ko defee kooku bu deewoon sax du tee xel mi ne ci yow dund ak dee moom ngay yemale waaw. waaye nag dañuy continuer ba tey yaa ngi doon wax sànq ci combat bi mais dafa am ay sangat yoo xamante ni dañuy gis mbër yi di ko def parfois te yaa ngi wax ne Siteu na fexe ba naka Modou Lo njëkk ci stade bi. kon tey jii yan façon sangat ngay liggéey ba xam ne koo ko man di jox bu ko sangatoo dina ci am ay résultat yoo xamante ni dina am solo lool yan façon sangat la. waa incha allah man kenn ku ne xam ne ni sama sangat maa farat naa kitaabu fi sa in maanaam man tamay sang alxuraan la sangat bari na lu la sëriñ di jox nga koy sangoo fekk ndox rek nit ki bala nga koo liggéeyal da ngay xool tabiyaam xool biddiwam xool kii sang gën ci moom wala xool kii takk gën ci moom. wala xool ki sarax gën ci moom wala xool ki taal a gën ci moom maanaam nga liggéeyal ko liggéey boo xamante ni ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala samay sangat dama koy defee nu ne am naa sangatu gën goo xamante ni bu nu yàqee nit njabar ko maanaam ba mu yàqule ba woon transitaire di yàqule wala mu doon bëgg tukki daanaka ay affaire am di të wala ñu di ko ñaan si mënta jàppandi wala ay tolof tolof lu mu dugg sotti cangat googu buñ la ko joxee nga ut gu mag ut inde ñu am luñ la ut loolu ginaaru seq nga am loo ko def ñu jël lii mu puso def loolu la ko ci ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala incha allahu rabbi cambat cangat yooyu di ci gis sa bopp ñun dañuy cangat nit ndax léeg-léeg ñu jàpp nit yaram wi diis ba nga xamante ni bu tëddee day bëgg a dee am nit ñoo xamante ni day mel ni ngelaw mooy dox seen yaram am nit ñoo xamante ni dañ naan lu ma jéem sangatu naa fu ne fekk sëriñ bi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa moo leen xoolul fekk sëriñ bi moo taxaw ci ñoom moo tax nit ki bala nga ko jox ay sangat nanga nga ko xool xam luy tabiyaam xam luy biddéewam xam luy ilmu nujuum ndax dafa am nit ñoo xamante ni dañuy bëgg di ñaan te ñoom ku leen adatloo seen tur sax xamuñu ko xamuñu mu sallasa xamuñu mu rabban xamuñu xaatim bu damm xamuñu lu isbilaay azam moo tax métier mi léeg-léeg nga dégganteeg ni sax du la wóolu man li may wax rek awma ma secrétaire aw ma kenn man kenn du ma téel ay téléphone loolu dama koy préciser ci émission bu ne képp ku ma jot man nga jot muy Cheikh Moustapha Fall Kéeman léeg-léeg may nelaw sax waaye sama kersa day tax ak soxla si nit ñi ndax nit ñi heure bu ne la ñuy woote léeg-léeg ma wuy nit ci ay nelaw mu may wax ba xam yow la man dóor yeeg aju yeeg jafe-jafe yeeg nekkuma ci ku ma wuyu maa la wuyu personnellement ku ma jotul sama ñaari numéro yi nga xamante ne moom lañ ma xamee boo ma envoyé vocal ci kattanu yàlla tabaraka wa taala ma wuy la waaye maay borom seet maay borom càngat yi maay borom jooni jooni maay boroom def gis maay Cheikh Moussa Fall borom def ak gis Cheikh Moussa Fall borom jooni jooni Cheikh Moussa Fall lépp lu waaye di yootu ñu jox la sunuy sangat boo demee boo bëggee ni kun boo bañee ni kun man la ñuy wax Cheikh Moussa Fall borom juróom-ñaari ñaq yi borom sondeel yi ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala am na solo mu nekk ab lim boo xam ne lépp daf koy liggéey waaye nag dañuy waxtaan ba tey ci ñi xam a tukki bëgg a génn nga gis ko bëgg ñëw senegal ay këyit ko lan nga si liggéey. waaw mu mel ni ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala comme li ma doon wax rek bu weesoo mbirum saayir ndax nee na ambassade yi dafa am arnaque ndax ambassade di duñ jël lu mat million nit kenn ku ne andi cinquante mille wala soixante mille ñu tànn ci ñaar fukki nit wala fanweeri nit jox leen ay visa ñi ci des neewoon naa leen gone yi dinañ songu géej gi dugg leen samay vidéo nee naa leen jinne yi na nit ñi ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala ku ñaanluwul jógo seen njaboot ñaanlu nit ñi danañ dugg ci géej gi danañ songu géej gi ñu ci baree bari danañ des ci géej gi waaye ñu néew ñoo ci des képp koo xamante ni yaa ngi jéggi jéem tukki maanaam muy échec ngay déposé duñ la may boo gisanteeg Cheikh Moussa Fall ñu xool la xool la say mbir xoolal la say sarax am na ci yoo xamante ni dañ koy bind defal la ko ci pittax mu weex tàll togg loola ko nga lekk ko yow kase suul yax yi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala day dem am na loo xamante ni dañ la koy liggéeyal nga sangoo ko dem ba géej ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala lu weesu ginnaaw timis wala bu la neexee laata bës ci set jamonoy fajar nga dem def ko fa ci kàttanu yàlla tabaaraka wa mépp réew moo xamante ni bëgg nga ko mépp réew moo xamante ni yaa ngi koy yaakaar ñuy tukki xam nan ma ak nit ñi nga xamante ni ña nga fa ndax Europe day dëkk boo xamante ni du Sénégal foo xam da ngay xëy rek dugg ci euh, chantier bi wala mécanicien bi ñu jël ay kayit am na ñoo xamante ni da leen di jafe ñu ne fay at seen waajur yi duñu xam lu leen téye fekk li ñuy mën a def mooy dem ci restaurant yi di raxas wala dem ci kër yi di garder wala di yor màggetu tubaab yi képp koo xamante ne mbirum këyit moo xam da ngay concours moo xam enaam nga ne moo xam da ngay jéem concours boo mënti doon ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala boo jànkonteeg Cheikh Moussa Fall Kéemaan boroom def gis boroom ku bëgg ni kun ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala boo demee nga am këyit yu gaaw ci mépp réew mooy mën a dox Sénégal ba Amérique Siin ba Hong man la ñuy wax seex Moustapha Fall borom sarax gi Cheikh Moustapha Fall borom seet Cheikh Moustapha Fall mi gaa ci tukki nga xamante ni jooni joon lay def seet daal képp ku mu të tukki képp ku mu të maanaam nga jéem-jéem ba sonn jotoo ci boo gisee Cheikh Moustapha Fall ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala da nga tukki ci lu gaaw ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala am na solo waaye nag dañuy continuer ba tey euh, parfois nga gis koo xamante ni dafay bëgg samp rawatina élection yi jëm ci yi nga gis ne Ousmane Sonko ñu bëree bari instant yi ñu ngi koy dir mbag nag nga gisee élection yi actuellement. waaw incha allah mu mel ni maa ngi ko doon wax Ousmane Sonko na góorgóorluwaat bu baax maanaam wurmbal mbii mu nekk ak fii mu nekk ndax newoon naa leen Ousmane Sonko <coughs> waxoon naa ko jamonoy jafe jamono joo xamante ni ku mës a génn neel Ousmane Sonko baax neel Ousmane Sonko rafet neex neel Ousmane Sonko taaru wala tubaab la. dama ni leen noonu Ousmane Sonko ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala li ma gis du doon candidat bu yóbboo ay dossier ca fañ koy defee bu déggee irrecevable bum mu bett kenn bu bëggee nguur gi tegu ci loxoom ah na wut numéro 2. amoon na sëriñam bu mag bu ma woon man ko sëñ maa ngi lay wormaal loolu li nga ma jiitu ci yan waaye li ma wax ci dara darajey bàyyi Cheikh Ndaw sama mam ci dara darajey sëriñ Cheikh Ndigal sama soppe Cheikh Mourtala mi ma am ndigalam di ñaan moom sëñ Fallu ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala li ma wax dara du ko dindi élection yii ma gis na góor góorgóorlu coalition bii taxaw ak ñii taxaw ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala bu moytul maanaam lu néew lay rawee gaay wala lu ko moytul balootaas ba amoon nga xamante ni moom la ñuy wax cohabitation Ousmane Sonko bu góor góorgóorluwul élection yi dana gisu garaw maanaam tabiyaam taxaw na foo xamante ni su ma doon moom damay teel a génn bàyyi jomaay ak nguur gi ndax moom biddiwum nit la koo xamante ni fi mu nekk dafa war a jiitu kenn waru koo jiital bu nu demee ba ca kanam mu bañ a tàqalikoo jomaay ci kanam tuuti buñ jugee ci ñetti at yi jëm ñeenti at danañ tàqalikoo ci tàqalikoo boo xamante ni nomination ndax ñu bari dañuy foog ni Sonko fal Jomaay loolu am na de sabab am na waaye nguur yàllaa koy joxe xulillaahi maalikal mulki tuuti tilka mulka man tasa wa tunsi mun tasa yàlla nee na maay joxe nguur ci lu ma sob moom Ousmane Sonko nii nii mu demee na xam ni premier élection mi ngi nii ndax woowoon na Sénégal te damaa bëgg it mu xalaat li ko jox nguur gi ndax kat Ablaye Wade nee na du jaar ci ay cadavre di pale waaye Ousmane Sonko na xam ne forcé wut nit waaye nit ña doon ay cadavre mu dugg mu mu dugg pale na góor góorgóorluwaat xool lan la signé ak ndax waxtaan am na fa wala waxtaan amu fa ndax xale yii dee ngir moom xale yi ñu dagg seeni loxo man am naa ci ñaar ñoo xamante ni biñ leen di tëj daanaka ay liir lañ fi bàyyi am na ci koo xamante ni Cap Manuel lañ ko tëj la woon Jomaay li nga tax nga xamante ni sunu borom a garaaw moom daan na lekkandoog Jomaay di ko séentu nguur yi Ousmane Sonko moom taxaw na waxal na boppam ni chut xaw ma bu 9 mètres xaw ma ñaata mètre carré la nekkoon nit ñi foog ni moom la yàlla rocc ko jox ko koo xamante ni moom sax foogul ni moom kon dama bëgg mu xoolaat deret yi nga xamante ni ñoo tuuru ngir moom dëkk bi metti na nit ñi góor ñaa ngi ñaan nit ñaa ngi gobar jaasi ku añ doo reer nit ñi maanaam di tiit ñuy dàq gor yi na xoolaat bu mu war de na xoolaat li ko jox xaw ma lu mu signé ak Macky waaye bu mu signé mukk li nga xamante nii maanaam mooy waxtaane xale yi ñi nga xamante nii seen deret daa tuuru loolu bu mu ko nangu mukk ndax dama cee seetaan koo xam bi ma seetaanee yaayam Casamance damaa jooy nee na moo doonoon samay bët moo doonoon samay tànk moom mënta wax xale bee ko expliqué te kook dañ koo faat kon na góor góorgóorluwaat ci élection yi xam ne bu yéexee bu dawul fas élection yi dana seere ci moom ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala assemblée bu xat xat ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala ci élection yi. Ah, ba waxtaan mooy feebar yi. émorite. ballonnement mu nekk ci liggéey bala ñu ci suñu débat bi. waaw incha allah mu mel ni kenn ku ne xam na ni Cheikh Moustapha ak kattan maanaam kenn ku ne xam na ni góor guy gaaw a daanu góor goo xamante ni day gaaw a yegg ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala jooni jooni borom sëyu 45 minutes ngi ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala min ko min ngeen ko Cheikh Moustapha Fall. man nit laa koo xamante ni góor ñi nga xam ne dañuy gaaw a yegg wala seen ndox baaxul wala seen màndi wu dëgërul ci kàttanu yàlla tabaaraka wa bu ñu gisee Cheikh Moussa Fall dinañ yokk te dinañ gis seen bopp ñi nga xamante ni gis nañ siti yoo xamante ni day dagg karaw di xonqal ay bët ñii seen bët di ñuul ñii seen bët di kafe ñii seen karaw di dagg ñii seen wey dagg ñii dem siti dana jàpp góor ba téye ko ci wàllu màndiwu ba du am doom dana jàpp jigéen ba loo seeg moom mu tàng jëru tuur dana jàpp ay tànk di ko tàngal di ko ruux dana jàpp yaram di ko diisal siti dana def nit loo xamante ni ba nit ki foog ni leneen la fekk siti la ñëpp ñoo xamante ni am nañ siti buñ jéem ko teg Cheikh Moussa Fall xam nañ ni garabu siti yee ngi fi képp koo xamante ni yaa ngi may dégg xam nga ni garabu émorite maay borom émorite bi nga xamante ni da seeraloo di la balalaloo di la di la balone maanaam ngay génne ngelaw wala ngay seere wala sa biir di fees dell ci kattanu yàlla tabaaraka tax taala te maanaam fépp foo toog mel ni da ngaa lekk fekk lekkoo wala ngay toog ay fan doo dem duus ci kàttanu yàlla tabaaraka wa boo ñëwee Cheikh Moussa Fall traité la ko nit ñi nag xam nañ ci man pommade bi nga xamante ni mooy pommade yokk awra man maay borom yokk awra borom 16 21 borom ñaari ñëpp ak xaaj ku ne xam na ko ci man ñëpp xam nañ ni Cheikh Moussa Fall ñi ma yokkal awra ñu ngi ciy gis seen bopp. man maay góor goo xamante ne da ngay jot say jeeg du mer ci kàttanu yàlla tabaaraka wa beneen bi nga xamante ne nekk na fi muy wàllu jigéen ñi nga xamante ni bëgg nañ yokku taat ans ween xeetu bagage yooyu képp koo xamante ni bañ nga sa sëriñ mer ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala boo jànkoon teg Cheikh Moustapha Fall gis sa bopp ndéem émission bi dafa gàtt ak waxtu yi kenn ku ne xam na ma ci wàllu bayre njaay wàllu ubbiku wàllu ku ñu njabar wàllu ku wàllu jigéen goo xamante ni dafa taxaw te am doom jigéen joo xamante ni jéem na lu ne ak góor goo xamante ni mi ngi yàqule ak ñi nga xamante ni seeni mbir ñi ngi yàqu lu bari du ñu xam liggéey la ci kàttanu yàlla tabaaraka taala général daal ku ma seetaan ci seen tele bi seetaan ma jël samay ñaari numéro moo xam-xamal foo nekk incha allah rabbi boo jëflanteeg Cheikh Moussa Fall di kontaan borom ku bëgg ni ku bañ ni ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di am naa ba beneen yoon rek incha ci beneen.